il n'est pas crédible fan nag de def da ngaa nee na am nay dossier ci man na ko génnee ku dàq fan ci journal Sénégal ak monde bi yëpp s'appelle Pam Ndiaye demal faj te je le défie ne il a am na seen dossier bu ko nga xam du góor parce que mënu ko génne nañ bàyyi kàcc ak fenn. waaw d'accord sama xarit bañ Macky Sall Sonko ba mel ni jàmbu Sonko ba day far nag. waaw nu may balance nga koy attaqué nii yow. émission yaa ko fa tudd. waaw mais Sonko dina fa tax nga attaqué lu mu wax day fen barke Alxuraan sama bàmmeel laa tiim damay jël Pape Ndiaye muy fen di fen ci télé bi ban problème nga am ban problème nga am ak Pape Ndiaye noonu laa amee Sonko mooy kiy fen rek ak Abdou Bara Dolly di sosal Macky Sall ça dafa am une race de menteurs et d'insulteurs Sénégal dafa dellu ginnaaw xabaar bu mag bu mel ni Pape Ndiaye wala groupe fenkat comme Pape Ndiaye Sonko mun liggéeyam loolu macha allah très crédible mooy groupe des fenkat ak ñeneen ñoo xam ne le groupe des insulteurs ñoom Tunkara ñoom ñooñu ñoom dof yooyu ay euh, ñoom Assane Diouf vraiment Sénégal moo dellu ginnaaw Assane Diouf conseiller municipal. Euh, euh, Assane Diouf sa xarit la woon kat yow. boobu waaw mu ngi noonu mais bi muy ñëw dafa ñëw doole. Ah. man kuy néew doole ñu indi la. Hmm. embarqué ci avion. man dama am xolu yërmande. Hmm. maa dem aéroport teeru ko. Hmm. la lu ma fayee yëpp sama kër Almadi jox ko jox ko deuxième étage mu kese rek mu def ko tux yamba chaque jour. da ngay tux kër yamba bu bon la ba mu demee tere dama saaga lan laa ko def maa ko plaidé génne ko prison. lu may fayee saaga rek. ah mais parce que yow yaa fekk saagakat nga daal di koy plaider. ma kat da du yaa fekk saagakat bi. kan moom. waaw mais du war affaire saagakat. nga plaider ko man dama foogoo rek ne. Hmm. li ma jiitaloon. waaw mooy ab sénégalais. ba amoon teraangaam ak États-Unis ñu indi ko fii mu nar a sonn ndeysaan sama xol tooñ ma ma xam nga saaga mën nga mën nga tuub maa ngi Abdoulaye Wade ñu ne ko saaga jour bi julli gi keroog maa ko jox bu bees tàq boo xam ne couleur crevette ak chaussette ak caleçon ak suède maa ko jox ay jean ay chemise un jour lem na yëpp depuis trois ans mu fi de xam nga soxla ko lu ma trois ans mu màgget mu jur ko war ma mayoon bu <laughs> dee kii kii booy baadoo la kii du gor kii maa ko sauvé maa ko jox añ reer ndékki jox ko deux cent mille francs nga ne Assane Diouf mu ne ma sama sama yaay Amérique laa jógee aw ma dërëm ma jox sama yaay ma jël deux cent mille francs may ko di ko dama jox sa yaay. mais maître jël cent mille franc ne ko dañuy déplacé aussi maître kooku mooy taxaw di ma saaga. wuy njaam njaam ne sutura. man du ma defal di non. kon ñëw ma sutura kenn. dafa dem ca Pam Ndiaye ca Walfadjri. waaw dem a yàq lu mel ne. te journaliste bu mag boobu nga xamante ne émission bi. moom rek la nit ñi di seetaan foofee ca Walfadjri. waaw intéressé ma léegi dafa dem foofu. nekk fii jamono ji Sénégal 7 tamit. comme yaa ngi euh, tudd vendredi bu jot euh, fii man ak moom 100 pour cent actu. d'accord xam nag léegi dafa jiital fenkat bu mag la yéen jël <laughs> émission boobu waajooju dof bu fenkat boobu la Assane Diouf dem jó jóoréer yi ma ko may waroon na cee booy caleçon ak survêtement yi. da ko mën ay caleçon. ah amul slip dafa war slip bu nga ko may ëpp ko. pot daan na fii boros à dents ah. jox lu ma douzaine caleçon ak euh, ak survêtement ba tàq. maître maître ñëwoon fi pour wax waxi. Assane Diouf nekk fi di tux yamba. par di tux yamba ba xale yi wax ma Assane Diouf jëm doxu <laughs> léegi euh, man rek lay saaga lu may fay léegi ba continuer ci essentiel voilà nañ ñëw si l'essentiel léegi perte la fu dee saboté émission bi voilà bu nañ ñëw vraiment il faut parler de si l'essentiel perte bu ñu divertir ah, non tu n'es pas sérieuse allez-y maître nañ ñëw si l'essentiel non mais ñam xaaral sama question tontu ko ci non non may ma la deuxième dama bëgg mu leeral ma ci ça m'intéresse muy kaaw baara dool yi dama bëgg xam lu waral mu nekk député que depuis loo kenn jugé wu ko sur le plan juridique nga indi ma ci ay leeral ça m'intéresse. est-ce que manifestation. Penda laisse-le manifestation. Mm-hmm, elle devait être interdite. Mm-hmm. ndax ci biir campagne électorale euh, pré-campagne la woon. Mm-hmm. c'est interdit par la loi. donc kenn du leen autorisé mais lu nekk lañ njëkk préfet bi ak état bi parce que boo se préfet yu bëri interdire manifestation yi ñu bind nag préfet yëpp département yëpp dinañu manifester.